taala gën leen fi bàyyi ba mu yàgg lool ci barki Seydina Mouhamed sallallahu alayhi wa sallam di nuyu ñi nga xam ne aussi di dem ci prison yi di seet ñi nga xam ne ñoo fa nekk ah di di fa jaaree ci hôpitaux yi rek di leen ñaanal tamit yàlla yàlla delloo leen seen kanamu njaboot nuyu neen ñëpp delluwaat seen émission bi di kàddu askan bi tey nag comme Thiat ni nga ko waxee rek ñu amaat ay invité de marque si kanam tuuti incha allah di ngeen leen découvrir ay ca jaajëf Amina mi ngi noonu toujours mbégte ak contentement di bokk ak yow uh, plateau bi waaye tey nag damay dem ci samay invité ki ci njëkk uh, moom mooy uh, Pape Maguette Samb Pape Maguette Samb kenn dootu ko présenté fii di ndey ji réew lépp lu soxal aada ak cosaan mi ngi ciy yëngu Pape Maguette ma bàyyi la nga nuyu. kontaan ci invitation bi ngeen ma invité. bi ma ñëw fekk naa fi sama benn jar rakk fekk naa fi ñu di ko wax Diop di nuyu nag xalifa it borom ndoom bi tànk yi fi nekk jaraaf yi fi nekk ak ndey jiréew ak saltige yi ak limaan ak fere yi di nuyu it waa Ngor waa Wakaam waa Yow waa Wakaam ba Tëngéej ba Jandeer ba yéen ñu ngi leen nuyu ci turu collectivité de Lébu de Yoff dina xamee ni rek ñu ngi nit toog di jéem a waxtaan jéem a gëstu li ñu xam ci collectivité bi moom lañu ñu fii jërëjëf Pape kàddu yi rafet na nuyoo bi rafet na di la wax rek dalal ak jàmm fii ci sunu plateau kaddu askan bi ay ca damay jàll ci sama euh, càmmoñ di nuyu ki nga xamante si nii mooy góor euh, a Gora góor a Diop nag mooy délégué marché bii di Yoff suñ Gora maa ngi lay nuyu di la wax dalal jàmm sunu téléspectateur yoo xamante ne ni ñu ngi ñuy suivre si Facebook bi moo moo ilif ñëpp parce que da naan jaraaf yem ci nga ne saltige yëpp waaye da nga naan ndey ji réew boo ne mooy ndey yëpp mm-hmm. ndey ndey ji réew njaaxaanaay lay tëddee mm-hmm. ci aada mm-hmm. yoof gi ñu nekk nii am naa benn maam bu ñoo wax maam Amadou mbay lu yoof melee nii jaxasoo lool dafa xëy ootu kuriga jaraaf yi ñëw saltige yi ñëw ilimaan yi ñëw jàpp ñëw toog mu ne man Amadou Mbaye mii bés di ko tey jël naa tax a soo waaj boo ci tubaab bi bo demee ci bi euh mu nga fa nek ministre de intérieur intérieur la nekk jaraaf day nekk porte-parole du gouvernement saltige moy nek ministre force armée Féré, moy nek police policier, moy ñoy ñoy ñooy dëkk bi mais li nga ma laaj damay yëg de mille quatre cent trente deux yoof am lébu waaw booba demeti kayoor moo ilif fii la ko dale ngaay mexe ba nga dugg ngor demeel moo ko yoroon bu at mi dee mag ñi takk suuf yóbbu ngaay mexe ba ñu demee ba mu yàgg la mag ñi taxaw naa ah, lii de mënaatuñu ko mooy indi xeexu jàmbur bi ngeen di dégg waaye nag puwaaru ndey réew moo yoof gi ñu nekk nii su amoon cent milliards ndey bu réew ko war a denc bu yoof soxlaa bu yoof soxlaa dañoo waxtaan ak jaraaf jaraaf yoon ni saltige nag demal leen di ji mu gën a xaalis loolu mooy roy rolu ndey ji bu xaalis boobu jeexee nag yoof am na droit laajaat ne boo demee ndey ji réew nañu doxal nangam ma ñëw seet ku mel ni jóob nag koy lebal ma cent mille mbaa deux ma jox yow loolu du du nekk bor de du nekk léegi nag coutume yàqu na li tax coutume yàqu ku nekk dafa fàllu léegi mais bu jëkk bi suñu maam yi nekk suñu ndijaay yi boobu ndawalal coutume amoon na mooy ndey jéew bu demee ci géej dañu ko jox ndawal jaraaf dem taaxu jox ko ndawal saltige dem jox ko ndawal loolu mooy li nga xamee ne mooy wàllu coutume parce que coutume bi jaraaf mooy def intervention ndey ji réew mooy def intervention bon donc loolu moo taxoon ñu amoon woo warugar warugar wit dem na ba ci képp ku am soxla si dëkk bi da nga naan ah xaaral ma seeti ndey ji réew su ma amee joxe su ma amul dem la bi joxe waaye nag bu leen yaakaar nañ ñoom fi ñu nekk nii dañ ñu fay de suñuy maam ak suñu nijaay fi nekkoon fay nañu leen waaye ñun dañuy demate rek di jox suñuy mbokk yi fi nekk rek. parce que li ngeen nekkee nii di comme ça tey ku ñëw laaj la soxlaam nga war ko ko mën a fajal loolu fan fan ngeen di jëlee ressource boobu noonu financière. Euh, demate rek seeti ku mel ni ku mel ni que rek xam nga xam nga ñun it yàlla defal nañu am nañu am nañu ressource boo xam ne ñoo ko doon àll banque tool yaa ngi fi. léeg nga jaay benn parcelle leneen nga jaay leneen léeg nga dugal leneen loolu boo amee loolu loolu loolu mooy ressource bi nga xam ne moom moo fi nekk te kii Jóob mi toog jàkkaarloo man su ma demoon leb ko cinq cent mille xam na ne mën naa ko fay feeg deux mois na am naa lu ma ko mën a fay loolu mooy ba ressource bi nga may laaj loolu mooy ñun trang ji ñu yàlla defal si dëkk bi. ma fa euh, mille cinq. waaw. ba léegi waaw. est-ce que yomb na. yo métti na. dafa métti trop trop trop. métti na lool parce que jog seet si la. gan day ñëw sa doo ko nit day jóge sa ba Cees ñëw seet la. Mm. naa man damaa dëgg sa tuutu nit jóge caari wala géejawaay naa man kat damaa dëgg sa ba bëgg nangam ak nangam looloo ko tax a métti waaw loolu moom métti ñu lay ñu leen di seet dañuy ñëw seet si leen wala dañuy ñëw solliciter leen comme wax leen seen problème wala. waaw ñoom souvent nag ñi ñëw ñëpp kenn dañu ut si lu ñu am rek. Ah, waaw bu ñu ñëwee nag ah sëñ bi mu ndey kër ga dara mu fa wala am problème police wala am problème tribunal mm-hmm. yow nga jóg seet yi nga xam parce que ñu yàlla dafa def toujours ñu ñu yor boroom ndox bi tànk yi dañu am ay collaboration ak eh, police ak gendarmerie ak tribunal yu bari mën nañ ko fi mm-hmm. waaye genn wàll ku jóge penku ñëw ni daal da ngay ut si am si gars si ñuul rek. dëgg la jaajëf am na solo ñu jàll ci sunu beneen invité bi muy góor euh, Gora Diop Gora Diop di délégué euh, marché Yoff euh, marché Gora dañ lay laajte délégué bi lan moo ko undu depuis kañ ngeen la Yoff am délégué marché bi. soos loolu moom dinaa ci sawar ndax yàlla dogal na 1987 la lañu ko sos 1987 booba taa Mamadou Diop yal na yàlla yërëm ko dooli koy leer euh, moo nekk ville de Dakar moo liggéey marché bi alors sax mu ñëw ubbi marché bi bu ñëw ubbi marché bi nag kenn ku nekk jóg bëgg ko wax say doléances kon euh, moom amoon na ak moom ab xame daan ànd ak moom léegi bi nga xamee ne nag euh, ubbi nañ marché bi ba pare. mu noonu il faut ngeen former bureau ngeen am délégué de marché nas taxawal seen bureau comme ça lepp lu ngeen waxtane fi ak lepp lu marché bi soxla koku moy ñew maire bu ñewé wax nu ko nu man ci taxaw jap depuis jamono bobu nak lañu dajé lolu ban at la won 1987 la. 87 waaw boobu ñuy préparé campagne 88 yoyu alors ko ñu ubi marché bi donc euh, nuy doxal mi nga xam ne nañu bureau bi. mbooloo mi toog ñu ne may yow daal comme gis nañ ne yaa ngi minante nga ak politiciens yi dañ lay jiital nga nekk suñu délégué ànd ak ku ñu doon wax njool ñang kooku moom retiré wu ne moom day waaja génn du mën a nekk délégué yamal suñu benn paa boo xam ne bi dëkk bi xam nañ ko muy Baye ba dara yal na ko yàlla yërëm kooku nekkoon mag mu baax jaxasoog ñun alors sax may dégg ñu ne nee na bëgg na jiite marché bi ma waxee mu ne ma noo yaay ndaw te li nga ci man mënuma ko doxalal man ma nekk sa gannaaw ñu itam ñuy ànd nag di dem ak ñëw euh, di dem ak a ñëw di dox ak wax ak a jël doléance marché bi di yóbbu ba yàlla dogal tey ñu agsi fii kon daal li ma la ci mën a wax daal mooy euh, am nañu bureau boo xam ne bii man maay président bi maa ko jiite am na secrétaire général am na trésorier am na associé et cetera et cetera noonu lañu ko yaatale ba bureau dem na ci trente personnes waaw yàlla dogal nit ñuy taxawu marché bi naa bu ma gënee avancé tuuti mooy jafe-jafe du ñàkk ci marché waaye bi ñu koy ubbi nag benn kon rek moo fi nekkoon muy óol bi yàlla dogal nag bi ñu ko ubbee maire ba fi jaarit def nga li nga man dafa nga ay cantine joxe woon ci ay numéro yi ñu ko joxe woon yàlla dogal ñuy dem ban am fi problème euh, war na may jiite sax euh, ñu ñaanal maam Alassane Laye ndax ku taxaw ci suñu suñu suñu développement marché la ñu problème dañ ko Euh, ñew fekk ko mu tok dis ko problème mu marché bi mu daal wo mbay puy nako ko auto bi ñu dem marché man ko ah, sëñ bi tanga ki mu ne mu nan dem ba marché mu ñew taxaw ci passe courant bi wax ak autorité yi fu ñewon police ak ña fa ñëwoon ñëpp mu leen ak delu len fi bu fu ken laal dara ñoo nga delu mu taxaw ne ma goro a ko mbàkkee mu ne ma marché bi dañ ko tabax ba étage jamono yooyu mu makay wax yagna ay 2000 ay ay 80 sa 87 88 89 yooyu la yàlla dogal la waxoon am na tabax nañu marché bi ba étage nañu ko bu fi yàlla defoon sa sa itam nga nekkoon fi te mënoon dara it am nga place boo xam ne yaa ko moomal sa bopp loolu yi euh, nga baal ma kon euh, délégué bi moom lan mooy rôle bu dul ay régler problème comme ni nga ko waxee rek benn quantine moo fi nekkoon ñu dema dema ba mu nekk ay cantine yu bëri nekk état léegi lan mooy lan mooy rôle euh, jërëjëf euh, rôle délégué marché mooy comme mbooloo dañu toog jiital la seen kanam yaakaar la ci nga di leen taxaw ci seeni problème euh, du ñàkk mbooloo moo gis am na njiit ñu taxaw seeni problème alors ça que euh, ku ci am soxla nga jóg moo xam problème police la moo xam problème tribunal la moo xam problème gendarmerie la moo xam problème ci biir dëkk bi yëpp yow délégué bi yaay jóg dox loolu wax loolu toppatoo ko ba nga xam ne bii eh, commerçant bi dana ci gis boppam donc loolu moo gën nekk rôle délégué euh, ak it su ñu fekkee ne mairie bi fi nekk mairie bu fu nekk bu amee lu mu soxla ci marché bi il foog mu wax ak yow délégué bi yow tam nga wax ak sa bureau wax ak membre yi ni leen ah mairie bi kat préparé na lii bëgg na lii def lii wala bëgg naa def lii ci marché wala wax ak yéen ci lii ba defee ñu convoqué réunion ñu waxtaan ci ba nga xam ne dañuy bokk benn kàddu parce que ñu dem waxtaan ak maire bi moom itam mu déglu ñu li nga li ñu ko indil li nga xam ne tegu na ci yoon wala mën na cee d'accord ak ñun mu d'accord si ak ñun loo xam ne aussi mënu ci d'accord ak ñun it dana wax ne ah lii kat nañ ci waxtaanaat duñ ci mën a d'accord parce que nii la demee demee nii ñu waxtaan daal ba amuk juboo loolu moo nekk rôle délégué de marché euh, ku am problème ci marché bi foog nga ñëw euh, même da ngay toog gis koo xam ne day jóge ci hors sax ci biti ñëw soxla fi dara bu ñëwee dañ ko naa dem na ci délégué marché délégué marché amul salaire commerçant yi la jiital euh, dañ la fay donc dañ la jiital liggéey bénévolement la donc liggéey rek ngir walanteeru xam ne yow ñu ngi jiitee am na si ñu la ëpp xam-xam fuuf am na si ñu la ëpp alal lu mu doona bari na si ñu la ko ëppale te teewul dañoo bàyyi lépp ñëpp jiital la kon yow li la war rek nga nekk jaamu askan woowu di lu ci seeni bëgg-bëgg ci li nga xam ne tegu na ci yoon ba nga xam ne bii kenn ku ne da nga gis sa bopp ci marché bi loolu daal. macha allah moo gën a am kii ci. macha allah délégué marché am na solo am na solo papa euh, ku nekk xam ne jiit yombul surtout luy demee ni marché euh, depuis 87 euh, yaa nekk seen délégué ci. loo xam ne euh, euh, démb la 87 yàgg na ñun defe naa caat boobu boobu <laughs> donc nga nekk ci di ko gérer ba léegi euh, ku nekk xam na comme ni ma ko waxee njiit lu mu mel yaa des beaux yaa des hauts et des donc loolu am na noo koy noo koy noo koy waaw xanaa metti lool rek metti lool rek ndax xam nga liggéey boo xam ne da ngay bàyyi sa place léeg nga xëy dem ab réunion Ndakaaru Mamadou Diop moom nga ma laaj nag mooy kan. Mamadou Diop moo nekkoon maire de Dakar ancien maire de Dakar bi mu nekkee ancien maire de Dakar itam ba mu jógee fa bi mu ñëwee fii Yoff visite bi mu njëkk def ci marché bi la ko defee bi ñu àndee muy visité marché bi dana ma man day am naa lu ma metti tey man ko ah ci lan mu waaw ndax man Ndakaaru gépp yàlla dogal na maa ko defar boo demee Grand Dakar maa ko defar ba tubaarkàlla kon tey su ma ñëwee Yoff euh, marché bi def nii ay mbaar lii metti na ma donc kon li ma bëgg ngeen jàppale ma mairie amul lu muy tabaxee marché waaye ma wut promoteur boo xam ne dana ko mën a liggéey ñu jaay leen place yi yéen itam ngeen fay promoteur boobu su ko defee ñu wute leen ay papiers yoo xamante ne yii euh, da ngeen ci mën a jàpp ngir mën a consommer seen seen i place fi nga xay wax nañu loolu itam jafe woon na lool nag metti woon na lool waaye ñu ànd ak kilifa yi ñu war a àndal waxtaan ci ak waa dëkk bi yépp ñu waxtaan ci ak commerçant yi ba ñu bokk d'accord ci ñu tabax marché yi loolu 2003 la ñu commencé woon tabax bi euh, avant ñu koy tabax promoteur yi fi jaar bari na mais promoteur bu mu indi itam dana ne ah appel def bi de kii lañu jàpp ne mën na koo tabax dafa ñu dañuy dañuy dañuy dagee ci marché yi di réunion chaque mois dañu daan dagee Sandaga kër bàyyi jàgg gi Touba Sandaga chaque mois bu jot ñu dagee kenn ku nekk yóbbu sa problème mu marché man ka sama marché lii moo fa manqué lii moo fa manqué nii la demee demee nii su ko defee comme ñoom ay mag lañu ñu xelal ñu ne nañu def nii nañ waxee nii su ñu def délégation dem ci kilifa yi ci kaw ñu ànd ak ñoom def ko su laagee ñu man ko régler ci ci suufit ñu régler ko loolu moo nekkoon ñu taxawaay ak moom di jóob ba yàlla dogal moom nu am ak moom d'accord benn promoteur bu ñuy wax euh, Ndiaye ñëwoon fi fekk ñun suñuy gëstu xam nañu ne kooku am na marché yi muy tabax yoo xam ne agul ak yi am na dix ans yi am na cinq ñu ne ko boobu promoteur mënu ko tabax mu ne lu tax ñu tegal ko ba mu demee ba vérifié itam xam na ne dañ ko wax dëgg la euh, mu defaat waat ñeneen waat biram ñi nga mu ñëw ma waxee ma ne ko ah, kii doomu yoof la te am nañ yaakaar ne comme doomu yoof la du def ci dëkk bi loo xamante ne lii yoof da koy da koy kontar loolu da wala yoof di ko ci di ko ci xas ndax mbokkum ñëpp la ñu ànd ak moom itam waxtaan ak moom ba ñu juboo ci période mu liggéey marché bi wax dëgg yàlla liggéey bi tubaarkàlla liggéey na ko étage ba tubaarkàlla Euh, bi ñu demee ba ci finition yi rek ñu xaw a am tuuti problème ci dër bi ci kaw yooyu mais yàlla dogal na yooyu yëpp ñu kii ko moom itam mu nekk ko dal moom biram def na ci alalam ba fi may wax yow nii marché bi léegi mu am 15 ans defe naa ne bu ko pul mais ba léegi am na ñu ko ameel xaalis donc am na fii ñu ko ameel xaalis ñoo xam ne bii xam naa ci dara te mosu ci taxaw mosu ci wax dara day maslaa rek loolu moo waral ñu avancé tey ba ak si foofu. dëgg la euh, Pape Euh, ci taxawaay boobu la ñuy euh, continuer bala may jàll ci Pape Maguette ma taxawaay bi comme audience bi ndax yomb na wala yomb parfois euh, commerçant bi am problème bu urgent bëgg la bëgg a gisee ak yow wala bëgg a toog wala benn groupe de commerçant ñu am lenn lu leen métti bëgg a ñëw jàkkaarloog yow wax la ko audience boobu ndax yomb na wala yombul. waaw boobu moom mën naa wax na yomb na lool ndax man maa ngi ci marché bi génnuma marché bi ba tey. kon naa surveillant de marché bi ma Pape Diop embauché ville de Dakar bi mu moom remplacé Mamadou Diop moom mu embauché ville de Dakar. kon da ngeen a am bureau ci biir maire ci biir marché bi. waaw am na fa bureau. léegi yàlla dogal euh, ma nekk surveillant de marché bari na marché yi ma jaar ci Dakar mais bi ñu commencé nag tabax marché bi en 2003 laa demandé euh, Pape Diop na ko dama bëggoon ñu affecté ma marché Yoff parce que may délégué marché bi il faut ma taxawu liggéey ci lañ ma indee marché yoo ma continuer yore surveillant de marché bi métti woon lool nag parce que bëggal nekkal maire yi bëgg nekkal commerçant yi dafay métti mais yàlla dogal na man maire bu fi jaar rek anuma yow séq na ma yow jàmm joo xam ne li commerçant yi bëgg danañu ko am maire bi li mu bëgg dana ko am ndax lépp dañ koy teg si yoon boo xamante ne commerçant bi moo tegu si yoon bureau bi dañuy taxaw ne maa kii waxal ak moom tegu si yoon fekkente ne maire bi la danaa wax ak maire bi ne ko ah lii tegu si yoon duñ ko nangu defal nii bu defee loolu lu mu métti métti nag dañ ciy ànd ak dal waxtaan ba yàlla dimbali ñu am ci ndam loolu loolu laa fa nekkee mais délégué de marché euh, yomb na yombul ndax li yomb na yombul mooy bu fekkente ne yow da ngaa gëm ne euh, lii danga nga liggéey jaamu ci yàlla gëm ne ñii la jiital amaana bu dee situation ñoo la ko ëppalee wala bu dee ab xam-xama ñoo la ko ëppalee ndax am na ñoo xam ne ñu ngi am bac nekk ci marché bi di liggéey te yow jàngu tubaab mm-hmm. am ñoo xamante ni bii am nañ sax mit euh, yu gën a kawe yooyu mm-hmm. ay diplôme yu gën a kawe yooyu ñu ngi ci marché bi di liggéey donc kon ñoo ñëpp boo leen bëggee jiite da ngay wàcc mm-hmm. woyof toy bu ko defee nga mën a euh, ànd ak ñëpp ku ci am problème dama naa leen sama bureau ngi nii numéro téléphone yaa ngi nii ku ñëw soxla ma rek jox leen ko sama numéro aw ma lu may làqu aw ma lu may ku ma soxla it woo ma muy guddi muy bëccëg ñu xamee wuñu Pula Fuuta baag séeréer baag naar baag askan wu ne xeet wu ne am na ci marché bi mais euh, noonu ñu amee ci marché bi aussi noonu laa mën a supporter ñëpp ku ca ma jox la si cër wax naa la sànq ne la bureau bi boo demee Pula Fuuta yaa ngi ci bokk boo demee séeréer yaa ngi ci bokk boo demee naar yaa ngi ci bokk boo demee wolof yaa ngi ci bokk lébu yaa ngi ci bokk donc kon bureau bi ñëpp la boole loolu Euh, yàlla di ma ci dimbali itam may déglu ñëpp man suma ma jàddeew yoon dañ may woo ci bureau bi ñu ne ma délégué lii ak lii lii ak lii mm-hmm. parce que ni waroo defee nii wala waroo waxee nii mm-hmm. ma ci rëy damay dellu gannaaw ma itam xam ne ñii kat li ñu wax mooy dëgg ma dellu gannaaw mm-hmm. bu ko defee kenn ku nekk boo jàddee ca marché bi ma itam pour ma tegle ci yoon day yomb parce que dama naa la man mi su ma jàddee fii lañ may dugal kon yow itam soo jàddee fii laa lay dugal donc ñu koy waxtaane di ko waxtaane bu am ak déggoo mm-hmm. alors ça que noonu lay doxalee ak ñoom mm-hmm. yàlla dogal boobu ba léegi ma jiite ko sax euh, bu ñu demee ba war a def assemblée sénéral bu ñu dajalee mbooloo mi ne dañuy falaat bureau bi mm-hmm. asab kenn du ko kontar koo wax mu ne noonoo man mënuma ko yor yow yaa fi nekk séeréer dëgg la waaw waaw loolu dañ ko doon dañ ko doon def chaque année dañ ko def ñaari at yu jàll ñu def ko yàlla dogal na nag euh, depuis trois cent ba quatre ans ngi nii jotaguñ ko woon def ndax euh, booba jafe-jafe yi marché bi amoon ak chantier yi fi nekkoon ak yooyu ndax toujours dañu nekk ci defaraat donc euh, loolu moo taxoon mais ba fi mu nekk nii dañ jàppoon année bi passé nii bi ñu ko waree def feebar bi dugg jàppoon nañ ba pare feebar bi dugg mënatuñu ko def léegi mooy terewul booba ba légui bureau bi suñu amé instant li ñu wara a rek dañuy contacter bureau bi le mat 5 ba le 6 ñu tok waxtaane ko buñu ñu dem mairie ñu and ñun 4 wala 5 ñu dem mairie waxtaan ak ñom ba ñu am d'accord bu ñëwé jàll jox xalé ñu jallalé ko ci marché bi ba nga xamné li fi amon kat rek la ñu ko ci nii ak na mais bi ngeen den bi ngeen doon défarat euh, bureau bi y avait d'autres candidats wala euh, dañ la dañ la fa dañ la fa doon tégar rek waaw dañ ma fa doon tégar rek parce que boobaa yenn détails yi sax damay bëgg a retiré wu mais da ngay wax ñu ne la amee ah, fii ku fi nekk donc yow mënoo dem il faut nga il nga nga nga seereel ñu parce que peut-être euh, li ma ci xam peut-être ñëpp du ko ci xam wala yooyu ak ñàkk ak commerçant du am jot. kon daal dafa dafa mel daal yow yaa leen doy ci seen ci seen bureau. waaw waaw waaw parce que man jàpp naa ne fii ma toll nii. Mm-hmm. su ma leen doyul waan bu ñu taxawoon ne ma dañuy renouveler bureau bi. tey jii ma gis kenn ku taxaw du ma ko xëccoog moom dama ko naa doxalal ma di la xelal parce que defe naa ne lu nekk degg naa ko ci su may liggéey yàqu na ci bon lu nekk daj naa ko ci waaye rek li ma bëggoon yàlla defal na ma ko mooy nekk ci ay mbaar buy taw fu ne nga dugal fa ay baas ak kii yàlla dimbali nga téye ko di ko liggéey ba tabax ko ay cantine ba yàlla dimbali la ba ku fa nekkoon am nga fa cantine wala nga am fa taabal loolu ndam la donc loolu rek laa bëggoon te ba léegi nii ñi ngi taxaw ci lépp loo xam ne maire bi war na ko faa def it danañu taxaw am fulla ak fayda ji toll ne mhm. maire bu fi nekk ñu taxaw la ba nga def ko dëgg la am na solo euh, Pape Maguette euh, en tant que ndey ji réew lan nga xalaat ci loolu mu fi développé depuis sànq jëmale ko ci yorinu marché bi ak yenn bi nga xam ni moom li nga ko yenn muy délégué marché yoo waaw euh, laaj bi ma laaj ci góor góor ci yoon ci aada ci xam-xam góor abaa yoof la parce que yoof góor li mu mën a lijjanti kenn ku ñu ko jox du ko mën parce que ñu ngi génération bi yëpp di ko dala car trente neuf quarante ak yëpp góor fa ñu dañu ànd ak moom ànd ak moom ci politique bi ànd ak moom ci mbedd mi ànd ak moom ci lépp boo dëgg góor yan bu loolu moom moo ko mën a régler te dëkk ndëkk ku ñu fa jox baat dëkk ba xam ne boo dee as gor doon ko mën a régler macha allah am na solo kon daal kontaan nga ci liggéey bi mu mel ni euh, euh, papa ñu seetlu ko ni fii Yoff dañ fi gis euh, jaraaf am na jaraaf am na saltige waaye tamit am na li nga xamante si ni mooy ndey ji réew ñetti ñetti kër yooyu ban moo ci gën a dëgër ban moo ci ëpp doole fii ci Yoff bi gën a dëgër bu dee ci aada bu ñëpp nangu ndey ji réew la ndey ji réew waaw mais papa ce que nekkul li nga nekk ndey ji réew moo tax non cosaan laay wax ah, moom cosaan laa indi déggoo ma ne bu bu fekk ci aada xam nga waxuma la ci làmb bu dee ci aada ndey ji moo moo mooy mooy ndey ñëpp jeexal na wax parce que jaraaf da kese dëgg la saltige nga nag saltige kese waaye ki da nga ji réew léegi kël ki na ndey ji réew ndey ji xalaat ko rek avant réew jën <laughs> dëgg la euh, papa mu mel ni tamit am na yeneen xeet yu fi nekk euh, ci xeet yi bokk na ci xonq bopp yi bokk na tamit ci eh, darobe yi bokk na ci bindi dindiir waaw déggul olof nag dindiir yi <laughs> am na waneer am na jaasiraato am na alima faal am na dëngaañ waaw dëngaañ mën mën la dëgg la am na sumbaar am na yuur waaye tamit am na eh, tatafu beñ waaw kay daa mel ni lim naa yëpp de <laughs> waaw am waaw xeet yooyu yëpp ndax mën nga ñu ko faram waaw xeet yooyu yëpp nag yëpp du du falu yëpp duñu falu déedéet euh, yuur mille quatre cent trente-deux lañu gëj gëj falu ci yoof ñoom ñoo ne mille quatre cent trente-deux boobu la yoof di xeex ak kajoor yuur non non yoof laa wax booba yu falu woon na ñoo nekkoon laman yi waaye bi 1432 passé ba yoof moom boppam amatul laman ba bët kee dem ba ñu falab laman bon boobu laman amul problème si ñun mm-hmm. bon tudaas euh, beneen tur ma dégg euh, darobe darobe ñoom du ñu falu waaye nag fal gu ñu fekk mu neex fal bu ñu fekkee mu neex. waaw ñoom ñoom daal ñoo xor xoromu pal yi. loolu boo waaw booy fal jaraaf moom du ma li ma xam mm-hmm. du ñu du ñu falu mais nag euh, am nañu fi doole parce que nag bari nañu fi ay suuf ñu bari gis nga jullukaay bii. Mm-hmm. ñoom ñoo ko moom ak lu baree bari. dëgg la laajal beneen. dindiir. waaw dindiir waaw dafa am ñaari xeet. mais ñoo bokkee mel na maam. kii dindiri dindiri boo ko déggee mooy koo xamee ne dafa yombal boppam ku baax a baax mu am nag beneen xeet bu ñu wax aay mais nag ñoo bokk maam maanaam nga bokk kii ndey ak baay yow nga baax loolu ñu dindiri nga kii soxla ñu ne aay la man sama pap dindiri la mais nag mosoo falu waaw loolu ma ko di laajul ba neen waneer waneer si laa laaj taal jaañ faloo jaraaf Alaay Taala Jaañ donc astafurla non waneer si la euh, Issa Mbengue faloo si la mbéy ngiraan mu baax mi faloo man mi mbéy ngiraan moo ma fal boo boo boo duggee biccee ma wax foofu yu bari ñoom rek seen maam ñu ngi tudde matawaay sàmba du ma wax sa wey waaye foofu rek laa yem waaw <laughs> ñoom waaw waaw déedéet da ngaa bëgg ma wayal ma ma wayal li waaw bàyyi Issa Mbenga bu ñu ko mataan naka ma maa li benn matuwaay sàmba waa yoofi géej loolu ñu ko daan way waaw mais nag matuwaay sàmba moom rek dafa bokk ak ñun mm-hmm. waaye bokk ñu xeet ñoom ñoo ñooy waneer yi waneer yooyu si mbay ngi daan faloo mbay ngi daan def falwul ci baayam ci ndeyam la parce que mbéy nga daan ndeyam ay baayam seen ñaar maa bokk ndey ak baay jaraaf instant mbéy nga dafa jël ab jarwaatam mbéy nga daan tudd ci moo tax mu na mu hmm. daal la waaye nag am na fi ay ñu ngi fi nekk ñu ngi bëgg a falaay boobu boobu léegi mën nga ñoo falu am nañu fi nekk ay xale lan moo tax mënuñu falu Euh, pal man bi may follu samay mag a ngi fi ma indi léegi cosaan boobu sama ñeente mag ñu ma bokkal ndey suy ñaar ndey bokkal ndey ak bàyyi ki may wax ki xam ne boobu ngaal coom ndiir a ngi fi ak dëwu ndiir sama beneen mag ñu ma bokkal benn ndey mais yàlla moo ak ak du joob meer mii du joob meer suy ñaari ma bokkal ndey ak bàyyi ñi tëggee ak yaabi géey suñu ñaari maam bokkaat benn bàyyi Abdou Koli Ñinga ak Samba Gueye Ñinga Abdou Koli Ñinga moo jur Ayta Njaay Samba Gueye Ñinga jur Neymar mu jur mais palk si man la ko tudd moom bu ma dem dana ma yow yaa mën a falu comme li dal kii yow yaa nekk ci élève de trottoir nga mhm. yaa xam dëkk bi te du job ma nga dama six ans waaye dana ma comme yaa xam dëkk bi mhm. te suñu dara fi ne ko jëlal mhm. laajal baneen wala wala mu continuer si boobu yow Alima Fall euh, si la Talla Diagne folo Baye Talla Diagne Baye Talla Diagne ma dugg si bu baax wala ma yem fi rek Baye Talla Diagne day bi ñu koy fal euh, boobu mbërum làmb la mais Talla Diagne si ñaar ma suñu ma ma ma ñaar ma bokk ndeeg bàyyi ma ma jàll boobu. ma ma jàll ma jàll si xeet bi si si <laughs> ñu bokk. mais moom waaw moom si la faloo si la Alaaji Ngaal faloo Alaaji Ngaal Jéen si la faloo moo jamondoog ñoomin dameel ak ñooñu kon bu la neex nga jàll beneen jàll ba xeet beneen xeet dëngaañ dëngaañ man mi si la faloo mm. waaye man may fukki ndey jële ak juróom benn waaw dëngaañ mm-hmm. mën naa si lim lu bari suñu maam ñi jëkk falu sa xeeba la bokk ñu ñu ne ko bay wax baytil mbenga waaye nag baytil mbenga am ñu koy ñun dafa am baytin mbenga borom jàmbur ak baytin mbenga borom beeñ beeñ beeñ mooy borom suuf si mm. man nag borom jàmbur laa bokk man suuf mooy beeñ waaw moy, waaw moy, waaw jox waaw mooy beeñ dañuy leeral ndax lii solo ndax sama classe gi sunu génération gi bien que ñi ngi fii ñi ngi dégg tuddi mais comprendre ñu aussi nan la waaw bu la neexee ma compté bu la neexee ma nga laaj ba. ñu dem ci Sumbar. Sumbar. waaw. Sumbar dañu ne ñoom moom maam Jare déedéet maam Jare mook waa Jolof añ mook maam maam ya ànda parce que maam Jare du du jinne rek nit ak jinne nit ak nit li loola boole ñun am nañu maam moo xam ne ñu wax ngóone maam Jare am na doom bu ñu wax ngóone suñu tudd suñu maam ñun. ku dëkk Yoff xam ne maam Jaara daan nekk nit bu ñu fekk la nga tëdd mu la jogal jogal ay diir dama tëdd sam néeg parce que maam Jaara nga fi moom loolu daan def xeetu nangaañ rek xeet wu xeet wu astafurlaa sumbaar dafa am ku ñu wax gàllu sàmba ñu gàllu sumbaar ku daan jaay ay reen la ak i sunguf mag ñi na nañu mag ñi nañu bu mag gàllu sumbaar masaan jegee mbaa mbaaw di dox moom maam Jaara ànd di ñëw ba dugg yoof gaalu sumbaar boobu nag moo war sumbaar moo war sumbaar googu ñoo wax sumbaar yi mais mais xeetu sumbaar du pal ko ñoo falu mooy ku mag rek yaay dem ku mag rek yaa fi taxaw ah, hiérarchie voilà bu ko defee nag bu ñoo tuuru maam jare am na xeej bu ñoo samp ak muuraay bu ñuul bu bu ñoo tëggal maam defar soo ñëwee muuru samp xeej bi su jeexee jeexee na ba déwén na si ba doon nekk fi naan saltige la déedéet waaye nag léegi ñoom ñu ngi ko def ak pal mais amu fi woon waaw moo tax ki la doon wax naan damay wax loolu la man li ma xam laa leen di wax paluk sumbaar du xeet ku ñu wax gaalu sàmba danaan jaay ay reen yàlla nattu ko maam njëriñ bëgg ko mais ba nga xamee ne yoo fa ngi xeex ma ma yëg de waaw ba nga xam ne yoo fa ngi xeex gaalu sumbaar boobu ñëwul maam ma njàll mbaas la ñu oote oo tax ñëwul amul xam-xam bi bi bi war pour wax ak maam njare hmm. boo maam ma njàllu mbaas dafa am rek ñaari ñaar ñaam maam njàllu am na maam ma njàllu juuf ak maam ma njàllu mbaas nit ñi nag dañ koy confondre benn ku mag kooku nag moo xeex mais maam ma juuf xeexul mooy maam yi waa njuufeen am ñoo am nañu rab bu ñuy wax maam bisaan juuf ñooñu mooy waa njuufeen hmm. mais maam ma njàllu sax mbaas ma dafa yàgg yoof lool waaye am na ñu ko dëkkal yoof gii waaye da boroom xam-xam la woon mu tax à 1432 bi ñoo xeex bi ñoo préparé xeex bi ma ngi dañuy jël Mamba Ndiallu maamu ñu ne comme que yaa mën a wax ak njare ñu la yóbbu tëngéej mu nekk tëngéej ak i jaamam mag ñi préparé defar li ñoo defar jël su lay jëkk fal gouvernement Lebu gouvernement Lebu keroog lañu ko fal ñu ne ku laa xeex da ngay am kilifa ñu ne waaw acca ñu ne bon na nañ fal jaraaf mais boobu avant boobu jaraaf amoon na amoon na avant boobu ku ñuy wax maam Gorom Tuuli Jóob sandinaat moo doon jaraaf bi mais bi xeet bi ñu bi ñu waree daje nag ñoo nañ fal jaraaf ci xeet yi mm. ku ñu jëkk fal jaraaf bu ñu dajee pour fal pour ma xeex kajoor ñu ngi jël maam Ali Sàmb fal ko jaraaf ñu ne ndey réew ñu ne jël bay baytin benga

wala nawet bi dina baax wala nawet bi du baax loolu mooy rôle saltige mooy ministère des forces armées moo war mooy xeex guddi ak bëccëg ànd ak sel mu ànd ak fere yi loolu mooy rôle rôle saltige mais nag ku jóg na man saltige laa te boo boo tëddee doo yeewu da ngay bindamti <laughs> te si ñoom ñëpp ku ci nekk di nga am benn njiit moom mooy xeet yuñ fi lim ñi yëpp ku si nekk même muy saltige yi instant bi nii am na benn njiit fii wala ku mu neex nekk saltige déedéet sa xeet wa ngay bokk sa xeet wa mais am nañu falu saltige te bokkuñu si xeet wi. si xeet mais ñooñu dañ leen koy fal wala ñoo koy forcer seen bopp. Ah, ki fi nekk day dañ koy fal waaye bi ñu koy fal dama man dama bañul. lu tax nga bañ. da ci bokkul. bokku ci xeet bi. bokkul fi xeet war a falu saltige muy muy ndëbaan. muy kan ndëbaan mi ngeen di tudd léegi. ndëbaan bokk ci xeet wi. Ah, ba ñu koy ba ñu koy préparé ma ne noonu bokk ci xeet wi parce que du du njëriñ. bàyyam moo di jëri te yoof nekkum ndey moo fi fal ndey ndey ndey jëri ndey noonu ndey falu na maanaam meen waaw voilà meen bàyyi du fi falu aw sant du fi falu mhm. kon euh, saltige du nekk benn ci ci kii wala dafa dafay bari non am na xeet bi fi nekk daal saltige daal wenn xeet daal moom laa. comme ñu koy fal laa bëgg a wax ñuy fal saltige. Ah. benn lay doon wala. déedéet fii mu nekk am nañu juróom-ñaari saltige. juróom mais day am dañuy am ku nekk ci bopp bi waaw fi mu nekk ni saltige bi gën a wóor wóor piir piir mooy Ndofane Ndofane la tudd Ndofane Moussa mu sant dooy maam maam kii yi maam boy doomam Ndofane ba gàtte moom kooku mooy saltige piir mooy piir kooku nga daa kooku nga d'accord mais kii ñu ma si moo dëkk bu ñu ma laajee ma daa wax li xew laaj ma lu bari léegi lan moo tax d'accord ci kooku da ci bokkul ci xeet wi te fii neegum ndey la ah, <laughs> neegum ndey moo fi falu ndey fi falu képp ku ñëw ak laxasaay waaw bàyyam ku ñëw wax bay da mbeng mm. saltige la kooku moo sama bàyyi xeete bu la neexee jàll bu la neexee ma léegi ñu dem si tatafu beñ tatafu beñ day mm-hmm. ndey ji réew bi tatafu beñ la alaaj Babacar Mbeng léegi nag moo moo fi mag ci borom doom bi tànk yi yëpp di ko dale ngor ba jalaaw moo ci mag waaye nag pal gi fi jëkk fi ne pal ko mag ak pal pal fi nag mbay ngiraan mbay ngiraan moo fi mag ak pal waaye nag ci mageel ci âge Babacar mel ngor ba jalaaw ngor ba ji mbijëm mais bëggoon nañoo xam euh, papa tatafu beeñ mooy lan tatafu beeñ daal ah ni ma gis daal man euh, ñoo ko xaajaatle ñoom daal ñoo xalaat seen xalaat ne tatafu beeñ daal ñooy piir bi ñoom loolu la ñu wax. beneen bi mooy ban. benn bi mooy euh, beeñ bi rek beeñ. beeñ la woon euh, ci début bi beeñ la woon léegi ñu yokk ci. tato ñoom ñu xàjj na bi beeñ la. mu am biir ak royal daal waaw bi bi euh, bi lañ mel beeñ bi ne tato fu beeñ. Mm. fi ne ñoom ñaar ko si dem na maa war a falu loolu mooy tato fu beeñ si la Babacar Mbengue mi falu. mais nag amoon na ñu doon falu nag sa fële am na jenn mag ñi dañu bañoon dañu bañoon. ñu jallaw li ma dire ñu dem ci benn bi dess moy xonku bop yi xonku bop nak du xet da dañ ko dafa xet deug na sax ngeen ñu ci gën gëna bari dafa am ñoo xam ne dañoo ñëw rek intégrer comme ki amu ci juddewul yof bu ko nexe dama nek xonku bop mm. mais lan moy xonku bop ok li xonku bop ku ñu wax ngi laan la tuddu ngi ko jóge jolof jolof la jóge waaw di ñëw fii takki bagage am di ñëw. bokkul woon ci yoof déedéet daf ci jóox. déedéet dafa ñëw dafa ndànk rek man sama maama jigéen sàmb jigéen la mais dafa gor. bi muy ñëw gor mooy la gor tool ay tool ami tool. Ah, xam nga li bu li bu pire day tool. baykat la. waaw day dafa amee toolam ke ke amul tool yow kii lu mu nekk yow fi amu fi dara <laughs> mu ngi nii. mais am na fi marché. ah ah man. ak yow. <laughs> na fi dara. waaw bu naroon génn nga téye ko tey. du dem bu bëggee ma jox ma jox ko nekk alors jigéen lan sàmba moom bi mu jógee Jolof dafa bopp bi dafa takk ay or. ak waa ay ak libidoor yu jëkk yi mm-hmm. ma maanaam daal gànjaram. Mm-hmm. moom la takk ci bopp bi fu mu jaajëfal xonk bopp xonk bopp xoolal xonk bopp. ah loolu moo waral xonk bopp. loolu moo waral xonk bopp mais ki waral xonk bopp rek mooy jigéen lan sàmba si jigéen la. dafa góor tool bi ma góor tool dem sëyi ngor bu mu sëyi ngor jur fa ko ñu abla sàmm ba mu mag ma mhm. bàyyi ka fi dellu jolof ñubbi mhm. loolu xonq bopp nag ñi koy ñi koy wax ñëpp xonq bopp du xeet xeet wa daal mooy ki ko waral mooy jigéen lañ di ko ji ngi lan sàmba moo jóge jolof ñëw fi laajal beneen wala wala ma taxawal. waaw <laughs> euh, mel ni xeet yëpp wala ma taxaw daa mel ni xeet yëpp euh, mat na. matul ah. matul de mais sànq ni ndey ji moo jiitu. waaw. bu jàllee ban moo ci topp ndey jire ndey jire bu jiitoo jaraaf moo ci topp saltige lan moy lan moy lan moy njëriñu jaraaf jaraaf jaraaf mën naa nekk chef du village jaraaf bu njëkk moo nekk porte-parole du gouvernement maanaam jaraaf bi bu ñu war a wax moom la ñoo demal wax ak seen euh, Macky Sall mhm. nangam ak nangam bu mhm. bu kat état bi nangam hôtel ñu daal ñu ne saltige ooteel mu daal di oote mm-hmm. ñu ne ah jaraaf waxal jaraaf ne nangam ak nangam nangam ñu saltige ndey ji loolu si xam mu ne waaw loolu de loolu loolu ma waxoon loolu mooy rôle jaraaf bu njëkkee jaraaf dina dalal nit gan laa dalal parce que jaraaf bu njëkk amoon na solo waaye rek dafa bari taale daan bi fu nekkee daanu jàpp sàcc sax yóbbu ko jaraaf yow bu mu dëgër mu fanaan bët seen ñu ñu réglé ko mm-hmm. loolu rôle jaraaf la dëgg la am na solo ay ca di leen fàttali téléspectateurs yu ñuy seetaan que yéen a ngi seen émission kàddu askan bi tey nag ñu dalaloon ci Pape Maguette sàmm ak ki nga xam ne mooy góor a jot di délégué ci marché bi waaye Pape Malick sàmm Pape Maguette sàmm tamit nekk ki nga xamante si ni mooy ndey ji réew fii ci Yoff ñuy waxtaane nag lépp lu jëm ci wàll aada ak cosaan dañuy daal di dem régie Papa jël fa ay extrait ñëwaat waaw ange billahi mina sheytaan rajim bismillahi rahmaani Euh, question bi nga xam ne yaa ngi ko posé pour ñu mën a jotal suñu xalaat si sa invité du jour muy suñu jaay muy Ndeye Ji Réew sàmba Samba euh, muy ku nga xam ne euh, man sama seede bi may seede du ma koy seede sax ci kutubu yoof dama koy seede ci mbir seede mbokk muy xeetum dëngaañ bi nga xame ne man moom laa bokk moom te ma gis taxawaay bi nga xame ne am na ko ci moo xam ci ku tojle la moo xam si ku am problème la moo xam ci luy defar la mu ngi oote ay réunion lu mënti am mu ngi jéem a xool njaboot gi famille dëngaañu ni ñuy def ba dajaloo ku ci kuñ ci mën a mën a dimbali moom ci boppam mu taxaw ci moo gandooy di ko dox di ko wax jël pouvoir yu bari tamit léeg-léeg sax mu jël ko sédd ko xale yi ci yaatoom ak uh, oyefam kon defe naa ne nit ku laa mën mënti gërëm defe naa ne ñi nga bokkal aw xeet ñu war a mën a taxaw gis sa taxawaay ci biir xeet wi ni ngay def ak jàpp gi nga jàpp war nañ laa mën a gërëm dañ koy ñaanal rek yàlla na yàlla guddal fanam dolli wéram bàyyi ko li mu liggéeyal xeet wi di ko liggéeyal yoof yàlla na ko yàlla kantanal ba mu def ko ba doyal parce que mat na ko oyof na te neex naa waxal te vraiment daal man euh, jarafal ngi kontaan naa trop si sama ndajaay jooju di ko ñaanal wér ak jàmm yàlla na yàlla dolli ko jàmm dolli ko wér wasalaam ausbillahi min shaitan rajim bismillahi rahmaani rahim euh, mbokk yoof maa ngi leen di nuyu yéen ñëpp ku si nekk si turam ak santam di sawar lool tey si wax si ku kilifa gu tàdd muy maget samba maget samba dama ko fekk ci kutum bi muy mag mo xamantene bi wacce na bopam yamale bopam wax ñep be man su ma ak mom sore na sore go xamantene dañ tok bu guddii guddi ñuy déewoo ëpp waxtu si téléphone ma mom ñuy waxtaan té mbiru waxtaan wu ñuy waxtaan lepp ité dëkk bi rek dong lay doon eh, ñëpp nak xam nañu Baye Maguette ci xadaram buy défendre position mu daf koy défendre bu mu mat donc na boka atté ci loolu ci xadar bobu yaa ngi erreur mag mu baax la ku neex dëkkal kuy xelal nak toujours ci lu yobbu yof kanam ci la bokk nak da fay dox baray ay péripéties ni ku nek di nga jaar ci lu ne mais Baye maget sincèrement man lima dund ak moom da ni ku nek boy waxal si da ngay wax ngir yalla rek tax lama dund ak moom bokk ak ko tunu Yoff nek na si une pièce incontournable ko xamantene ki ku bëgg mbokk la loolu moom ko sédel parce que dëj bu amé ci dëkk bi ba magget kën du ko fa jiit alalam dina ko fa ñak taam dina ko fa bayyi bëgg na mbokk lool ko ko laaj watte ko ko laaj xétam ba magget jambar la si ité dëkk bi ba magget jambar la si digëntem ak askan bi donc tay ñun dañu koy ñaanal yalla nak fu fi yàlla ba ca kanam kanam lépp lu ñuy séntu si lu baax si nit yàlla na ko yàlla defal man daal mënu mu waxaat leneen lu raw loolu si Baye ay ayca macha allah am na solo mu nekkoon ay seede yu ñuy jële woon fële kii ci euh, jaraaf bu Ali Diagne jaraaf Wokam ak ki nga xamante si ni mooy Pédar Sarr nekk ci euh, président euh, Frey Yoff bi Amina. ayca mhm, ah, macha allah. solo kàddu yi eh, seede yi tamit am na solo lool ah eh, defe naa bi nga ko seetaanee eh, am na loo ci yëg. Mm-hmm. li ma ci yëg daal mooy li ñu wax yëpp dëgg la ki jëkk wax moom dafa nekk jaraaf sa wakaam nekk ndey bi parce que maamam suñu maamam mu jóge say wakaam mm-hmm. li mu témoigné ni fennul nag dëgg la wax. <laughs> sama rakk la sama xarit la sama lépp la waaye nag duñu raayante ñu ay gannaaw de dañuy doxal dëgg toujours di mu wax dëgg la dañuy toog ba une heure de matin deux heures alors di waxtaan donc yéen yéen ñi toog it ku ma soxla fii fii ba trois heures de matin soo ma oowee ma uyu la. parce que man féex naa. incha allah euh, ma yemandi foofu xaj na ngeen laaj ma leen. ki mom moom wax nag suñu ñaar ma bokk néeg bay su mama mo jóge fi sey wakam mais moom da nga la bokk fi la cosaanoo wa fi ya mam mais ci walu bayam se euh wakam jaraaf la parce que palug wakam ngéyeen ñoo ko moom palug wakkaam ñi seen dege ñoko mom motax bi mu jotee moom mu dem mu jël parce que relation bi relation moom du jóg yoof dana ma seet si dana seet si fare yoof yi Pédar xaritam la man am la sak chaque semaine dana ñëw sama kër seet sama andil ma ay ay tranga mu xam ne ñoo bokk maam bu ñuy réunion xeet wi dina ñëw ku toj ci xeet wi mu yëg dana ñëw andi jaxalam ne li mu lee ko jox relation relation mbokk la du relation coutume rek waaye nag yàlla boolewaat ñu si coutume laajal beneen kaw <laughs> waa liggéey bi ndax moom mi ngi leen koy yombalal comme par exemple boo leen fekkee am na yoob leen lu mu soxla fële ca wakkaam wala naka sudul noonu tamit moom tamit mu am leen lu mu soxla ci yoob relation boobu mën naa wax comme genre relation diplomatie entre ñaari communes yi nan la demee ok li nga laaj am na solo lool léegi sax damay bàyyi wakkaam yéeg <laughs> jëm fan jëm <laughs> te na bi la waaw <laughs> <laughs> waaw après lay ah, nañ wax ci. Ah, ah, bi ñoo bokk ndey ak ko relation diplomatique. relation la <laughs> mhm. ak Ngor. ans. ah bon waaw. at la ay at. ñu ko kon bokk na ci dëkk yi ci Dakar. si Dakar gannaaw mbaaw fi jitu ban dëkk mo jitu ci Dakar. dëkk bi ji ji bi à part Tëngéej non doucement bu ma jiitu <laughs> waaw parce que Tëngéej moo nekkoon capitale bi. suñu ah, ñaar bu jandeer <laughs> jandeer <laughs> fi jiitu ñu ko biirum calaan. fële ca kaw. te boole Kayaar. jandeer waaw moo bi mag ñu jógee Jolof foofu lañu jëkk a dal. Hmm. wàcc yéegaat waaye nag fekk nañ fi eh, dëkk boobu nekk si kaw Tëngéej. barnya. No, the bankas. Bankas. Waaw ca kaw. maa ngi koy suukar não waaw dugalewu la. ñooñu bi ñu sëqee ñoo wàcc dem ñoo wàcc dem uti ci géej parce que booba <laughs> temps ñu lébu bu ñu ñëw fi géej lañ ah, doon seet moo tax não uhum. mujj fii. am géej fu não waaw fu am ndox rek. fu am ndox waaw ma maanaam boo boo ñëwee séeréer yi ñaami kay ñoo lébu yi. soo demee ci tukulóor cubalu soo mooy mooy ñu napp na napp géej mag ñi nag bi ñu jógee Jolof nag ñu ngi seet fu ndox nekk rek ñuy dandu di dandu bëgg si fii mais bi ñu ñëwee fekk nañu waa buum ñooñu bànqaas wàcc ba sos mbaaw mais waaye waa mag ñi dugg nañu mbaaw waaye ñaar at lañu fa def génn ñëw commencé yi ah, pour mu yaatu ah, moo tax Yoff am Ngor am Wakaam am mm. parce que ba ñu amoon mbaaw rek. bon bon du yaatu. Mm-hmm. waaye nag mag ñi borom xalaat lañu moo tax ñu yaatal ba ba ba set si géej gi. Mm-hmm. laajal beneen nga lu war a seen dëkkuwaay euh, Tëngéej parce que Tëngéej tamit bari na euh, ay lébu du dëkk lébu sax Tëngéej baat ñi. ok Tëngéej dëkk bi ñuy wax penc bi ñuy wax ndënko moo fi jiitu ñu sant mbay. ndënko waaw ndënko mu nga sa suuf waaye moom moom moo ñu dëkk ci géej gi. ñooñu ñoo jóge foofu ci dëkk bi eh, ci banqaas mm-hmm. ñëw wàcc foofu alors pour mën a defar parce que boobu temps lébu mm-hmm. géej la xam mm-hmm. ak mbay ak jàngal xuraan moo tax ñoo utoon géej bi ñu demee ba mu yàgg ñëw foofu def foofu di dem di nappi di dem tool di jàngal xuraan loolu moo waral foofu mais li am na loo wax sànq ma ñëw ci <laughs> Tëngéej Tëngéej Tëngéej quatre communes yi mooy mooy bi ci jiitu mm-hmm. parce que maire yi Tëngéej mage bu Dakar mille huit cent quatre-vingt-cinq la waaw waaw hôtel de ville ba mm-hmm. hôtel de ville bu Dakar bii mille huit cent quatre-vingt-cinq nekk deux ans bu nekk Tëngéej yàgg na waaye Tëngéej nag da bokkoon ci capital bi ku bëggoon téere fa ngay dem boroom xam-xam yi moo tey sëñ Bamba Alaaji Maalik ñëpp ku bëgg mësaan bëgg téere fa la bato bi naan teer ko amoon na amoon dafa amoon port bu mag bële. dëgg la am am na solo papa léegi man bala bala ñoo ñëwaat ci. Euh, ki nga xam ne dafa tàng de. bala ñoo ñëw ci <laughs> euh, ci frais bi dañuy dem ci euh, ki nga xamante si nii mooy Gora Diop. ci waxtaan bi la bokk waaw man ma tournoo de. <laughs> waaw papa xaaral papa ñoo ngi en direct <laughs> nga nekk di àdduna bi yëpp a ngi lay seetaan léegi mu jeex. ndeysaan dafa teel a ñëw nag <laughs> waaw dañuy jàll ci ki nga xamante si nii mooy Gora Diop Gora Diop ñu fas yéenee wax nag ci li nga xamante si nii mooy sécurité marché bi bala ñuy dem fële région ñëwaat sécurité marché bi. waaw sécurité marché bi de moom amal na ma solo lool. Mm-hmm. waaw ndax euh, ala la fa nekk te commerçant fu mu nekk lépp lu mu am rek. ci mu koom mu ngi ci marché bi mën naa ne xaalis sax duñ ko denc seen i kër ku ci mun mënta dem banque ba sa biir place nga koy denc kon sécurité bi am amal na ma solo lool sécurité bi nag euh, euh, maire bi mooy faykat yi fi nekk moo leen jël en charge na ay jamono kii bi dafa xawoon a taxi yi ñu tegoon dafa xawoon a metti ñu nekk ci di jàmmarloo ak ñoom ak waxtaan dañu nanu kon ñun danañu res gardien yi di leen jëlal gardien yi di ko fay donc léegi ñun ñoo ñu yoroo sécurité pour gardien yi di garde marché bi. dëgg la euh, papa am na solo euh, foofu la ñuy euh, jaare ci wàllum gardien beeg sécurité bi ñu dem xooli régie benn témoignage ak reportage bu ñu ko defoon ñëwaat ci yow. maa ngi tudd Mamadou Ba nekk fii si Yoff nekk. vice présidente association bu yoof bi ginnaaw bu ñu nuyoo ba présenté wu ñu ngi nuyu kilifa diina yi ci dëkk bi ak kilifa aada yi da leen gërëm da leen sant da leen ñaanal yàlla gudd fan ak wér-gu-yaram poème bi ñu indi pour ndax xam nañu Gora Diop Gora Diop mooy kan Gora Diop man bi ma commencé liggéey ci marché bi année 92 ba léegi ñu ngi ak moom ginaaw loolu Gora Diop ku oyof la te ku neexe waxal la te ko mun a jiite mbooloo la te mun na nangu ku ko yàdd bu si defee loo xamante ne naxas noon boo ko oowee nga ne ko sama waay dangaa juum dina la ko nangu donc Gora Diop vraiment ñu ngi am loolu lu ñu koy seede ginnaaw loolu bo marché baa ngi nii ñuy sant yàlla lool da ñaan kilifa yi ñu dolli ñu ñaan ndax instant bi Epidemi bi bi mu duggee ba léegi marché bi vraiment dafay eh, dafa bésew lool liggéey bi doxul ñu ñu ngi ñaan ñu sakku ñaan si ñoom ñu dolli ñu ñaan si marché bi eh, man maa ngi tudd Mamadou Ba da leen gërëm da warahmatullah sant salaamaaleykum wa rahmatullah salaamaaleykum Yenua rahmatullah maa ngi leen nuyu yéen waa TV man la Talla Diop jeune commerçant marché naa ñu bari xaw nañ ma xàmmee euh, da ngeen invité koo xam ne bi ni tam kilifa bu mat kilifa la comme ni ma ko njëkk a waxee ndax moom euh, combattant la xeexal na marché bi ci côté bu nekk ku nekk xam ne ne heure bu nekk marché bi yee na ko ci këram nekk ak sa njaboot nga tëdd ba yenn heure yi ñu yee la ne la dara xew na nga bàyyi li nga doon def yëpp dem loolu dafa métti te daf koy def bis bu yàlla ñu ku nekk ci marché bi rek xam nga loolu mu nekk koo xam ne bi affaire urne xàmmewul palfuuta xàmmewul séeréer xàmmewul ku fi dëkk xàmmewul ku fi dëkkul ñëpp la boole njaboote day jël temps yëpp def ko ci marché bi te bi tamit maanaam defaluñ ko loo xam ne bi waroon na ko mën a jar mais tereewul dafa volontaire nekk délégué marché bi jël temps yëpp def ko ci marché bi maanaam moom li ñu war a wax ci moom xajul sax ci émission mais xam nga rek comme affaire u temps moo leen jett il faut tamit ñu économiser li ñu a wax bàyyi ñi ne ñi wax mais daal lu ci mën am mooy ñun kontaan nañu je suis derrière vous te lépp lu muy yëkkati tey ñu ci suba ba ngoon ndaxte lépp lu mu am rek ci marché bi la ko la ko yemale waaw macha allah jërë ngeen jëf. Hmm? waaw man la Souleymane Kar di adjoint ci marché Yoff ci li nga xam ne yaakaar naa ne pour mu leeree ko ci trois minutes du yomb muy nit ki nga xam ne itam nit ku neex a waxal la ku neex a digal la te ku oyof la ci njiit ci loolu lu am solo la ci njiit jiitewul tamit ngir moo jiite marché bi ci doole wala ci xam-xam ci dara mais ci diisoo la ndax buroom marché lañu am dañuy tënk di ko jox mu doxal ñu waxal ñu kon ci loolu lañu ñu liggéey ak moom beneen bi ci topp mooy marché njaboot gu yaatu fi nekk kullu fut yaa ngi fi olof yaa ngi fi séeréer yaa ngi fi joola yaa ngi fi njaago yaa ngi fi lébu yi tamit ñu ngi fi kon nag bu góor a jiite lu mel noonu yëpp kon xam nga jiite woo ko ci xam-xam boppam da ko jiite ci li nga xam ne marché yëpp ñooy tenk jox mu xëy di ñu gontal loolu daal laa mun a wax di góor a di ku baax ku nangoo liggéey ku lewet ku nekk waaw kon salaamaaleykum wa rahmatullah man maay Ablaye Diop commerçant commerçant marché Yoff légui nek fi ak sunub délégué muy Gora Diop muy nit ku bax ko xay manam marché bi mom rek moko ñor ndax liggéem yépp limi def lépp adna ci marché bi lako def nek fi dal luy dimbali doom adam yi ak fiers manam no xam marché bi nu mu ndax dëkk bi kon la fi nekkal kon liggéey bi mu fi liggéey ci biir marché bi manam ci walu délégué bi nekk day jël alal bi ci def ci kenn dara loolu kon ak mbaaxam moom moo ko may loolu nit ku baax la boo seet góoraat maanaam qualité boo xam ne li mu bëgg mooy doomu aadama yëpp kenn ku ne am teraanga ak tedd nga moom rek moo ko ñor si dëkk bi taxawaay mi ak ni mu taxawoo marché ak ni mu taxawoo aussi taxawaay bu rafet leen taxawoo kon na góor kenn mënut a wax si moom lu paase ak mbaax ak taxawaay alal la lu mu ñàkk marché bee koo xañ soxlul ku ko fay ndax li mu fiy def noonu kenn jox ko dërëmu problème dafi am mu taxaw ci ba jeex problème mu jàmbur moo gën a problème am kon nag li muy taxawaayam kenn dañ di doon def mooy sant ko gërëm ko ak taxawaayam bu rafet loolu lañ xam si góor nit la koo xam ne wax dëgg yàlla nit ku julite la nit koo xam ne nit ku bëgg lu baax la nit koo xam ne maanaam nit ku bëgg ay mbokk la nit ku bëgg taxawaay boole ay nit maanaam boole pour ñu ànd nekk benn loolu rek dund dundal si marché bi dëkk bi moo gënal lu mën a am bu sañoon ni dëkk bi maanaam li mu fi taxawee taxawaay mu rafet la muy taxaw ndax li xew-xew bu fay amit dana sol aw dàllam taxawee ni mu ko war a taxawee ak taxawaay bu ngir yàlla dëkk bi di ñaan yàllaat maanaam bëgg dëkk bi no dëkk bi gën a tax ak commerce yi wàllu commerce yi ñu si nekk itam seen taxawaay nu mu gën a rafete loolu rek la moom la jublu mooy jublukaay góor koo seen itam muy dem nga xam ne góor góoraa nga dem maanaam ci soxla jàmm dong ci lay xëy ci lay gont nit ku baax la nit ku julli nit ku dëggu la nit koo xam ne amulu caaxaan amulu caaxaan amulu tappale lu ko waaye xam itam maanaam loo ko fekk itam dimbali doomu aadama rek moo ko tax a jóg kon nag mënuñoo taxaw lu wëlbatiku nun commerçant yi nekk marché Yoff kenn fayu ko dërëm joxunu ko dërëm dërëm bu ko nit fay par weer amul du bu muy fayee ko ci mairie du boo xam ne noo koy fay kon loolu amul kon taxawaay ak bëgg dëkk bi bëgg liggéey bi ak seet nu mu taxaw doomu aadama pour nuñ tedd nga loolu dong moo ko tax a jóg kon nag mënees su ko waxal dara lu passé loolu kon wasalaamaaleykum wa rahmatulah yéen itam waa Yoff mbool yéen itam seen taxawaay rafet na macha allah kon nag yàlla na gën a barkeel liggéey bi gën leen a taxaw gën leen a sàmm ba li ngeen bëgg itam ci liggéey bi ngeen liggéey yàlla sama borom gën koo barkeel ci barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam barke xaadimu rasul ay mu nekkoon ay témoignage yu am solo yu waa marché bi defoon ci kii di euh, Gora Diop di délégué marché Yoff mu mel ni liggéey bi rafet na euh, tonton Gora waaw euh, jërëjëf maa ngi sant ñi fi yëkkati kàddu yépp ndax ñoom li ñu wax jëme ko ci man ci ñoom la nekk ndax man nañ maa jiital ba pare fakka salma mënoon nañ maa jiite it ba pare euh, dama def loo xamante ne lii xëy ne duma ko mën a supporter wante ñoom ñëpp ba ci Mamadou Ba mi nga xam ne moo jëkk a wax moom lañ jëkk a teg kàddoom euh, man xooluma ko ne ko Pël Fuuta nga génn nga jege déedéet sama doomu ndey la sama xarit la dañuy waxtaane man ak moom loo xamante ne lii duma ko wax ak kenn mm-hmm. parce que dama ko fonk ci lenn nit ku amul kilifa bu amul conseil yu ko jege yu ko ñemeñ mën naa ne ci juum lay dëkk te moom dafa bokk ci ñi nga xam ne dañ maa ñemeñ damay wax dëgg lépp loo xamante ne lii euh, def naa ko wala wax naa ko te xay na du na na gënal mbooloo mi dana ma woo ne ma sawaay dama laa soxla kaay maa ngi ci béréb wala ma ne ko ma ñëw mu ne ma xaaral ma ñëw mu ñëw ñu toog ci béréb bi mu ne ma sawaay waru woon a waxee nii wala war woon a def nii wala nit ñi ànduñ ci ca ñi lay bari na te mën agsi cee wax la ko bu boobaa dootuma ko waxaat Souleymane Kaar fii la dëkk ci Yoff eh, di sama xarit moom ci doomi Yoff ñu nekk ci marché bi ñu fi jëkk a nekk ak Moussa mbay mi nga xam ne moo nekkoon sama premier adjoint ñoom ñaar laa dëkk ci dëkk bi ñu ñëw nekk ak man ñu ànd di liggéey ñoom baat bu nekk dégg nañ ko nag ay nit di leen ko wax yéen amu leen fulla ba ay yor bi jóge fële ñëw di leen jiitee ngeen juddoo ci dëkk bi dëkk ci dëkk bi mais bu ñu waxee lañ cay teg kooka sax bu fekkee du ku dëgër dana am na mu gisee ndax dañ naa la ñun nekkuñu fi ngiru xeet nekku nekkuñu fi ngir dëkk feeg ñàkk fee dëkk dañu fi nekk sunu mase bu nu kenn jaxase ñun sunu mase dañu ànd bokk ndey bokk bàyyi góor a jom noo ko jiital eh, nekk ci am te duñ ko bàyyi muy wax loo xëy waru ko wax wala muy def loo waru ko def mm. kooku nekk nit baax koo xamante ne kii Euh, lot naa sax taxaw di wax ay baax baax yi ma séq ak moom ak li ma xam ci moom bu ma amee problème sama kër wala ma feebar moo fay jiitu moo fay mujj dimbali leen Gora Diop parce que foo ngeen jàppale ko parce que sonn na ci marché bi nii naa te mi ngi ci ay jafe-jafe donc nit la koo xamante ne kii vraiment mm-hmm. ku baax la ku man social la ci marché bi mm-hmm. bu problème amee ci marché bi mm-hmm. bu juuti amee nit problème da yëkkati alalam fay ba pare doo ko woo ko ko ko du sax xaar man ma di si jotee donc kon maa ngi leen di sant baax di leen gërëm taala jóob kooku li tax ma koy wax Baye taala suma Baye taala jóob la tudd moo tax fu ma ko fekk Baye laa koy wooyee mais baayam la papaam bi ko jur euh, yaayam ak sama Baye ñoo bokk Baye donc moom moom moom papaam man maa ko war a yére yi may yor moom moo ko war a sol sama jaam la donc mu nekk doom ju baax ju yaru koo xam ne kii itam dama koy xelam dama ko rafetlu dama ko rafetlu bu baakha a baax ba taxna na fu may dem ñaare dama ko no tege sa place ñu and dem ndax buma ma mu indigal, ci ñi relevé ëlëk ndax amna na ma sha allah te itam teyna te itam nanguna deg ay ndigal nek dom ju baax ju may titoro fuma tollu euh, dem réunion rek ak lu mu metti metti dama ko na dagay ngay mu tëj ñu and dem mm-hmm. amna solo ki jé wax ablay job ablay job moy ablay job bi jay ci marché mom mm-hmm. itam saalika noonu laa bokkee ak moom suñuy jur yi maamam bi jur baayam ak sama maam bi jur sama baay ñoom ñaar ñoo bokkee baay mu nekk nit ku baax nekk nit koo xamante ne kii euh, sànq bi muy génn la Pa Maga Samba di wax naa sama xarit la ku baax la li nga wax ci moom loo wax ci baax ci ablaay Diop rek am na loo ca bàyyi ci Ablaye Diop laa gis nit koo xam ne kii mu ngi ci marché euh, ñu ko fa mag bariwul waaye marché naag ñëpp di laamisoo ak ñëpp jël alalam itam di dimbali doomu aadama yi lu ma teg sama bët ñoo xam ne ñii dañuy dem ba sonn lool ah nit mas na ma woone ma bu du woon Ablaye Diop ba tey génn naa marché bi ndax moo ma woo xam ne sonn na mu yëkkatu lu takk teg sama loxo na ma liggéey ci donc loolu ci jamono ji ku koy def nit ku baax nga koo xam ne kii itam du tànqam lu dara moom ak Moustapha Diop am na bi ñuy jël kii bi dafa faa fekkul waaye Moustapha Diop mooy magam nekk koo xam ne ñoom mënuma leen fay marché Yoff daal bu ma lay wax li commencé ci mag ñi ba ci xale yi gën a tuuti ñi fi dëkk ak ñi fi dëkkul di góor ñi ak jigéen ñi émission bi bu ngeen ko doon topp ci biir marché bi wax ak jigéen ñee góor ñi kàddu gi genn lay doon loolu nag du man ñoom la ñoom bi nga xam ne ñoo ma doyloo di wax wax ji rafet ci man amaana sax ma def loo xamante ne du leen neex waaye loolu yëpp ñoom dañ ko teg ci suuf ànd ko ànd ak man ci jafe yi marché bi ànd ak man ci bëgg-bëgg marché bi te xam ne marché moo nu boole te xam na marché bii kat mooy sunu teraanga euh, xam naa ne boo ma mayoon ma avancé ci tuuti bu fekkee may nga ma ko mooy que ñun dañuy sant yoof ndax sant yoof moom lay jëkkee moom lay mujjee parce que yoof dañ nu teral ab dëkk boo fa nekkee am fa teraanga fa nga juddoo fa nga dëkk mm-hmm. am fa njaboot ñëpp dafa yewoo bobu dekk bo sañan dekk yi ëpp xewal ci Sénégal mo fi mo ci jitu bo sañan dekk dekk yi gëna a avancé ci Sénégal yof mo ci jitu mom lay ñaan bes bu jot ñun li ñu am mu néew mu bari bu jakkay yi ñu def ci suñu alal bu jëmaay yi ñu def suñu alal comme niñ ko waxee sank ku faatu ci dekk bi itam nu yëkku danañ def délégation bu fekkee amna mbokk muy jaay ci marché bi wal doon dañ def suñu délégation dem jaale ji ko jël suñu suut jox ko bu ko amul ñun daañu dem ci robba jël suñu suut def ci fa ñuy yoof di dagale di dimbali ki nga xamante ni kii moo faatule donc marché bi noonu lañu fa nekkee di ñaan rek marché bi yéen kilifa yi ngeen toll nu ñaan ndax jafe-jafe yi bari na ni ko Modou Ba waxee jafe-jafe yi bari na trop waxuma dara mais feebar beeg léegi rek fi mu nekk nii marché bi boo koy xool ci wàllu koom-koom. wàññiku na bu baax a baax a baax a baax. Pape loolu dinañ ci ñëwaat. Uh, ci kanam muy uh, wàllu fi réew mi toll nii ak yoruñu marché bi muy koom-koom beeg yëpp dañuy jàllaat ci Pape Maguette uh, sànq fi ñu ko daggee woon fa la ñuy continuer muy relation ci témoignage yi. par rapport ak fële ne ñu jóge woon muy jaraafu Wakaam waxoon nañ ci mais dañuy jàll ci sa relation ak Fray Yoff parce que bu ñu nee Fray Yoff ñëpp xam nañ ci cinquante deux cinquante trois yi la que ni Fra tamit euh, demoon na ba ci biir benn la woon léegi dem nañ ba ci biir mu nekk ñaar mooy benn bi mooy ki nga xamante se ni sànq def na témoignage muy euh, kii di euh, Pédar waaw loo Pédar Pédar <laughs> loo ci loo loo ci loo ñu ciy wax papa ci loolu. waaw li ma ciy wax rek mooy. léegi bu ñu nee ñaar Fra la. yàq la yàq yàq yakhuna, yakhuna. Yakhuna. yàqu na yàqu na ndax am na bu maam maam maam oh, oh, si laa jëm waaw maam Ousmane Mbaye waaw ñoom ñëpp boo laa boo laa falu dañoo ñëpp day day daje penc mu de dina di juróomi nit mbaa juróom benn nit bu ñu dajee ñëpp ñu li mën fal nañu par exemple Diop président diwa ci topp diwa ci topp diwa ci topp mais dañoo dem ba ci biir ñoom beneen groupe boobu daje ne ñii dañoo liggéeyuñu wala dañu lekk alali yoo loolu moo tax ñu loolu ñi nga xamee ñun ñooy ñooy coutume bi di euh, fal parce que nekk fa yof nga nekk fa foog nga ñëw ba jumaa jë jaraaf ndey ji réew ñu def papier signé ko mooy dem gouvernance mooy dem intérieur mooy dem fu ne donc ñu beddu mu ngi ci këyit boobu ba dëgg ñoom moo tax ma dañoo yàq. kon légalement benn Freyok moo am. benn bi rek la. parce que këyit bi ngeen yor yéen turu ñi nekk ci beneen bi tamit seen tur ngi ci. waaw benn mboot benn Freyok. waaw bi nga xam ne ñoom peser yo ak ñu yor këyit ñoom ñëpp ñoom ñoom ñu ko parce que ñun ñoo ko signé ba dëgg bu ñu xëyee dem fële yàq la te nag wax nañu si ba sonn. lan moo waral loolu. ah xeeb ñi ne ne dañoo yàq peser dafa am groupe. ñoo yàq alal yof liggéey ñu loolu moo tax ñu ñu beddu dem ñoom bi bi bi ñu beddee dem waaye ñun ñi nga xam ne ñun ñoo leen intervenir leen ci ñu ñu ñu ñu la ñu àndal ci bu bu Pedar Sarr bi ngeen bokk yi waaw waaw ñoom lañu jàppale waaye nag ñëpp ay bokkal nag ñun ñëpp euh, maam Ousmane moomu baayam ñoo xeete solo na fi nay ji réew nekk na mi jur yaayam sama maga ma ma sàmba bon na sama bokkaat du dëgg donc nag groupe boobu yëpp yëpp yëpp ñun ñëpp benn benn maam lañu mm-hmm. waaye nag li ñuy def dafa jaaduwul mm-hmm. parce que du ku war a defar doo yàq déedéet ñoom dañoo yàq parce que yow bu ñu ne ñaar fere faam jaaduwul ba ba borom bi tànk ñu ñu ngi bëgg a xaaja ko loolu nag am na beneen cérémonie boo xam ne ñun ñu ngi préparé dugub. mu nekk troisième. waaw léegi nag ñun ñun dañu ne ma ko wala nga laajal foofu. ay jeunes ñu dem am na solo. ñun ñun dañu ne borom doom bi tànk dañu ne ñun man may maa jëkk a wax ne fere yooyu nañu toog ba yow nekk benn réunion bu ñu jëkk a def ñu ko def ko El Hadj Babacar Mbengue euh, Ndofane moo fi andi baat ne ko Ndofane mu ne ma ne ko bu ngeen demee toog leen ba yow nekk benn parce que ñaari fere yooyu bu leen bàyyee. bu ñu fa jógee kii di aw fi kii di aw ñun d'accord si loolu loolu moom la ñu doxal ba léegi man def naa un mois wala deux mois maa ngi demande Ndebane di demandé maam Ousmane pour waxtaan na ñoom pour ñu pour ñu mën a ñëw fekk seen i bokk wala ñu fekk si leen ñu ne dox nañu si pour que Yoff boo doon nekk benn waaye ñoom ñoo bañ nu mu ñëw fekk kenn. deuxième frais Yoff bi ñoo bañ. waa deuxième ba la bañ ba. B bi ak A ak B la. A ak B ah, waaw B bi ñoom. original ak <laughs> wala. occasion royal. <laughs> Ah, d'accord mais daal luñ ci mënti jàpp daal mooy benn frais yokk moo am légalement. moo am légalement ba barke démb lañ ko mujj bindaat yóbbaat ko fële euh, préfet yóbbu ko gouverneur xamal leen keneen ku fi ñëw te te te suñu awal ba ba la ko tenir compte ñun def nañu loolu bu yàgg bind nañu leetal yóbbu nañ ko fële yóbbu ministère de l'intérieur yóbbu gouverneur. jéem ñun ñoo ko ñoo ko def. daal seen bos légal waaw keneen ku fi ñëw ku dul ñun baaxul. Mm, légal waaw légal ah man xam nga man dëgg ci waaw. <laughs> léegi kon daal euh, bi euh, beneen frais yóbbu bi mooy bee bi comme ni nga ko waxee sànq ñoom amuñu droit organiser dara wala imposer dara ci dëkk bi. ñoom ñu ngay ñu ngay organiser seen fit seen fit ak ne dañoo defar parce que nekk sa jumaa ja

beneen fere di ñëw ba fekk fi ñaari ñaari camp. dëgg la ñun d'accord ñu loolu am am na am ngeen problème bu nu weng di ko lijjanti quand balaa beneen a ñëw xanaa boobu sotti ba pare. loolu moo tax ñu ñu leen d'accord guñ ci ta toog leen ba ñun ñëpp ñu nekk benn. est-ce que déggal nañ leen toog nañ. ah bu ñu ko déggaloo du ñu dem fenn parce que ñun ñu ñu ñu ñu ñu def awaal ñoom bu ñu ne fari taxaw te fo foog ñu def seen papier ñun ñu yóbbu ñu ne ñii ñoo fi nekk léegi. Mm-hmm.

gis nañ ko mu ngi jël eh, di mettre li nga xamante ni eh, bi ak jullikaay bi dañ ko for ni lo ci xalaat deug la wala du deug wa kay la nga mu luma gëna sawar lolu <laughs> ndabaan ko def be nga ya ko wax de. mak man mak sama ko wax. moom dafa ñëwé day tudd tur mom ragal. ndabaan dama xaw dégg dañoo forcé wéeru waaw ndabaan mo dem di mettre jul jullukaay ba. <laughs> fa lu ko tek kan moo ko def. ndabaan. do ñu def

xanaa bu toogee kay ba xalaat ne day defar du ñëw wax wala ñoom bu ñu réunion sax ñu yëg ne daje nañu pour defar foofu waaye dañuy debaan dem na fa di maître. maître bi pour lan la. Ah, moo xam moo xam xalaatam waaye ñu si bi ñu ko déggee. Mm. léegi lañ ñaawlu ngay ne fi boppam la. Mm. daa waroon a jaar ci kër yi. waaw dafa waroon a jaar ci kilifa yi. da kat ba waaw bëgg nañoo def nangam. Mm. même bu ñëwul si ñun war naa dem maire parce que dafay baax yépp tey mu rafet ah, <laughs> moom damaa faa. da ma xool moom day bëgg di wax ak day bëgg di wax ak jàkkaarloo caat. waaw léegi dama bëgg tey nag nga xool sa caméra ñu dégg li ngay wax bëgg ngay wax nga xool sa caméra wala ñuy xool ñuy xool fa baax yépp Abdoulaye Diouf fa ka fa def. la mm-hmm. fa rafet Abdoulaye Diouf mm-hmm. stade ba Abdoulaye Diouf. boo de war a war na kay bu bu toogee war a dem de maître mu wax Ablaye Diouf mu wax ak groupe am boobu mais nag mais nag la ñuy dégg moom kese la ñuy dégg ne Ndebane dem na fa defa maître. Pape euh, sa relation ak Abdoulaye Diouf en tant que ji réew. Abdoulaye Diouf maamam axan suñu bokk ndey ak baay. Mhm. yoof gi man la suñu maam ñaari maama bokk ndey ak baay. muy njiite géey ak yaabey géey ma continué foofu ah nji waaw njiite géey ak yaabey géey jaraaf xaajur géey moo leen jur yaabey géey moo jur binte bay ture binte bay ture moo jur kuré jéen kuré jéen moo jur maam saw jéen maam saw jéen maam saw jéen moo jur euh, awa sill mu jur Ablaye Ablaye Diouf Sarr de ma ñëw <laughs> man kay yow rek laay déglu fi toll nii. <laughs> njiite njiite gëy. <laughs> Eh, sama chéri bi. waaw ndaanaan la de. <laughs> ndaanaan la moo jur maam ngoon. Uh-huh. maam ngoon moo jur yaay ndey maram ñi nga yaay ndey maram jur jur. maay ak xan uh-huh. ba noppi ñu bokkaan maam. ku ñu wax Roxay sàmba Roxay Samba maam Jage Samba mooy mooy mooy mooy càmmañam. Roxay Samba moo jur yaay Baymor Sarr. Baye Mor moo jur Assar Assar moo jur euh, ministre Abdoulaye Diouf. d'accord leer na merci beaucoup de. waaw man ko jàppale mais bu weesoo papa relation mbokk gi relation professionnelle. Mhm. relation maa ngi jàppale guddi ak bëccëg. professionnel liggéey bi da ngay politique. waaye ba ma dalee politique yàgg na. ah da da technique laa fa sax. Ah. Abdoulaye Diouf nommé na ma conseil technique. waaw. ndeysaan waaw laaj ma tënkee jàpp mbaa wax sama xutaan ma jàll. dinañ ci ñëw mais dañuy jàll. ci li nga xamante ne nii mooy. dafa tànk te bëgg ma arrêté. question bi jëm ci délégué marché bi muy euh, dégg nañ tamit ñu ni euh, marché bi relation bu ñu am ak ñi nga xamante ne nii ñu ngi yor seen cantine ci alentour bi parce que ñoom dafa mel ni ñu ngi nekk di def pétition parce que kontaanuñu ci li nga xamante ne nii mooy marché bi parce que euh, ñoom nee nañ lépp li nga xamante ne nii. Euh, marché bi ñu ngi koy génne muy wàll euh, fay geek lépp daal ñu ngi koy joxe te marché bi ñoom dafa mel ni boole leen ci seen dara te bu tëj jotee ñu bëgg leen tëj loo loo ci xalaat euh, Papa Gora ah, waaw loolu de dana ma jaaxal ndax ñun ñi nekk ci alentour de marché bi dañ leen def na suñu bopp suñuy am réunion danañ jël ndaw na ko toppal lii wër marché bi yëpp nga wax leen ko kon am na ñuy ñëw am na ñuy ñëw ñu ñëwul nag xamuñu lu leen tere ñëw mais ñi ñëw la ñu dégg ci réunion ba ñoom doy na leen maanaam tëj na marché bi nag ak ñàkk tëj kooku bu ñu ci tuddee dañ nay tooñ ndax ñun du ñu mairie du ñu préfet du ñu gouvernement du ñu gouverneur te jàpp naa ne euh, tëj bi lu ko indi mooy feebar bi bi mu amee léegi bu mooy ñaari yoon ñuy tëj marché bi ci heure yi nga xamante ni moom la préfet joxe xëy ne euh, am na lu ñu ci waxtaanee ak waa maire bi nga xamante ne euh, affaire bi ñuy pare préparé pour tëj bi waa maire yi woo nañ nu bu njëkk ba ñu wax ak ñoom ñu ne préfet nee na nii lañ koy tëjee heure yi ak heure yi euh, bés nañu bés ñu ne ñoom ah loolu la préfet wax te préfet li mu wax kenn mënu ko dundal ñu ànd si ak ñoom mu metti lool bi ñu demee ba nga xam ne deuxième bi ñëwatee ne it alors sax waa mairie euh, Karax Mbeng ak Njaay Jéen ñoo ñëw fekk si ñu marché bu ñëwee ci bureau surveillant de marché bi daa leen dalal mu woo délégué marché yi bi nga xam ne woo naa six personnes xaw ma sept si délégué marché yi ñu fekkee ñu waxtaan ba ñu waxtaanee indi kayit yi nga xamante ne moom la préfet bind ne léegi kat marché bi foo ñu koy teg 17 heures alors sax ba 7 heures ci suba ñu doog koy ubbi ndax feebar bi daal dafa bari fi mu nekk nii ci dakaar

bi ñu ñoom waa mairie demee jox ko su préfet mu yóbbu ko préfet de na ko ne d' accord na ci ñoom li ñu ñaan ko waxtaan ngeen ci ba d' accord ak ñoom réeróowu leen te ñoom mosuñu marché wax mosuñu am problème kon léegi d' accord nañ ci lii bi kayit yi ñëwee laa gis ne dañ ne rii bay da mbeng li commencé ci buntu mairie ba ba frigo bu 18 heures 30 dañuy tëj comme marché bi li commencé ci bay da mbeng bi ba tey ba rii taale jaañ boobu itam day tëj parce que dafa jege marché bi te bu ñu tëjee marché bi yeneen biti yi jàkkaarloog marché bi ubbi dagaloo bi day am foofu ba ñu waxee loolu ñoom ñoo ko bind ci kayit indi ñoom ñun digalu leen ñu def ko sant ñu leen ñu def ko kon tëj ak tijji boobu ñun kooku suñu yoon nekku ca loolu loolu loolu moo nu féete kaw euh, première bi daanaa ci ànd ak gendarme yi sax di leen sensibiliser di leen wax ne leen dee leen tëj parce que bëgguma ñu fi tëj place jàmbur may ànd ak moom dem gendarmerie di ñaan comme que léegi ma jox te kayit gi photocopier naa ko ñëpp jot na ko su ma sañoon kenn du ma sonal ci yoonu gendarmerie comme ñoom ñoom ñi nekk ci bitti marché bi ci tali bi comme ñu di wax alors que ñoom dégguñu sama ndigal loolu ma ma maandu si ñoom comme ne rek ñoom ñu ngi luyee ci ay kër xëy na dañoo luyee ci ay kër mais bu ñu luyee ci kër itam ñu ngi bénéfice ci marché bi parce que mboolem ko amoon foofu kër tey nga def ko ay néeg sax ubbi ko ko bitik ndax ndax wantaa sa marché bi kon ñoom ñoo war a jege marché bi ñëw bokk ci marché bi lu marché bi laaj ñu joxe comme ñëpp di joxe seen i xalaat di joxe seen i dërëm ci marché bi boobaa ñu mën a xam ne ci marché bi la ñu bokk définitivement mais bu fekkente loolu amul ñun fi ñu ci mën a yem rek bu ñu amee réunion wax leen bu ñëwee baax na bu ñëwee ñu doxal suñu réunion waaye nag euh, tëj marché ak ñàkk a tëj marché maa ngi defal ay intervention ñu ne ci tali bi ñoo xam ne dañuy chaque jour ma defal leen intervention kon bu fekkante ne woon dama leen doon goddi kon du ci def intervention. du ma ko ci def mais man xooluma loolu bépp doomu aadama boo xam ne yaakaar nga ne man naa laa dimbali ci nangam nga ñëw wax ma ko dana ànd ak yow ci loolu ba mu jeex moo xam ci mairie bi lañ koy réglé wala gendarmerie lañ koy réglé wala tribunal lañ koy réglé danaa ci ànd ak yow ñàkk ci sama alal ak sama temps ba nga am ci ndam wala li yoon dogal noo xam ne lii la yoon dogal. dëgg la euh, am na solo mu mel ni lool nekkoon na ay leeral euh, te je pense que ni leer na ci bopp ñu bëri. ay ca malheureusement heure bi waxtu bi dab nañu pàppa li ñu bëggoon li ñuy wax rek lu duuf ci nag bi xajul ci cin li xanaa lu neex du doy dañ koy dagg ba beneen yoon ba bàyyi la nga tàggatoo papa ak sa mot de la fin li may tàggatoo mooy premièrement maa ngi leen di gërëm bu baax mm, ñu ngi lay delloo gërëm <laughs> di leen wax ne li war na di am parce li loom solo la mm-hmm. ko defee nga mën a xam dëkk bi bu baax mm-hmm. tàggo bi nag mooy tàggo maa ngi dem di ñëwaat la de. waaw maa ngi dem di ñëwaat de. waaw maa ngi dem di ñëwaat de. incha allah waaye fi may mujj nag maa ngi ñaanal sama sëriñ. Mm-hmm. jëkk ma koy amal muy sëñ Bay Maxaw mm-hmm. sama xarit la sama sëriñ la. Mm-hmm. di ñaanal it sama mag bu feebar. allah ji sàmm koo sama koo mooy sama xalifa sàmbeel. yàlla di ñaanal sama mag bi nekk fii eh, Awa Cissé di gërëm da sama doom yi vraiment sama doom yi ku ma yëg la am na solo lool day wax ak man avant mun yor yi yéen leen di gërëm ci teewaay bi ak ak sol gu rafet gi <laughs> ni ngeen di présenté vraiment kontaan nañu lool donc nag am naa fichier rek bon de góor da nga jël kenn dama jël kenn waaw léegi nag seen ah, seetloo ko seetloo moom daal li ajaat nga laal moof mu laal moof gis nga góor ku baax ngi nii vraiment li ngay wax fi yëpp rafet na <laughs> te doomu yoofu nga nag mm-hmm. yoofu nag dafa euh, cosaanoo ku fi def fukki at rek abaa yoof la wax na dëgg nag mm-hmm. loolu laa lay dolli mm-hmm. yoof gi fukki at lépp avantage bu yoof di am rek bu dee ngeen bàyyi ma de dinañ tàggu seet leen ñeneen ñu wax di gërëm nag mbay ngiraan nga mbay ngiraan moo ma fal jaraaf ndey ji réew ku baax la waaye dafa feebar yàlla mu jox ñaan na ko ne nee yi nekk fii cap moo ci man gannaaw moom fal gi seeni gi gannaaw moom man gannaaw moom ngor ba jale galaaw ma si nga nekk enceinte yéen ñaanal yàlla yal na yàlla yokk bayra bi. amiin amiin ba lépp lu ngeen jàll yal yàlla jàllale. mu rafet ci barke bi. incha gi tëdd fii. amiin yaa ngeen na papa Gora ñu bàyyi la nga nuyoo tàggatoo. waaw xanaa di leen sant bu baax di sant siyaas sama jarbaat bi nga xam ne moom itam ku ma jox cër la bu baax la di leen sant bu baax di leen gërëm di leen ñaanal yàlla. yokk télé bi ba mu àgg fu télé yi mag yi àgg rek dana ko yàlla yokk ba mu àgg fa xale yi baax ngeen ñu yaru ngeen vraiment man ngeen a dalal mag macha allah eh, di di gërëm mbool eh, seen cameraman bi mm-hmm, booy bu sawar la mm-hmm. bu ñu amee jàng gis naa cawarte gu mat cëkk la cay def fu nekk dana fu dugg pour mu tegu ci yoon ñu sant bu baax di leen gërëm di sant waa marché bi bu ma santee yoof sant naa marché bi waaye mënul ñàkk mënul ñàkk ma sant waa marché bi bu mooy limee nag damay juum ndax duma mën a matal waaye daal ku fay nekk ca marché ba yëngu yaa xam da ngay jaay yaa xam baana baana bu fay ñëw nga yaa xam baara ne bu fay yanu nga ñoom ñépp maa ngi leen sant maa ngi leen di gërëm te di leen ñaanal yàlla ñu yokk ba yëg ko waaye itam di ñaan autorité yi ci dëkk bi ñu dimbali ñu ndax suñu jigéeni marché bi sonn nañ ndax tey bala kon ngaa xam ne sonn nañu gis nga oto bu ñuul boobu gaare ci buntu marché bi bëccëg ay deux heures day ramasser si ay xaalis yoo xam ne da koy lebal maire yi bu ñu xëyee marché amuñu lu ñu jënd ñenn ñi amuñu lu ñu jën ñu jël xaalis jox leen ñuy jaay ba deux heures ñëw ramasser te jënd bu ñu la jox da nga ca tegub téeméer donc bu ëllëgee ñu defalaat la loolu te loolu jàpp naa ne autorités yi bu ñu dimbali woon wutal ñu projet bu am solo jigéen ñi ci liggéey ak ndaw ñi kon defe naa loolu dana wàññeeku te it ngi leen koy ñi leen koy dénk ngeen jàppaleen ci bu baax a baax a baax ndax jigéen ñi sonn nañu xale yi bëgg nañoo dem waaye sonn nañ ñoom it ndax banque yi xëy na li ngi leen di teg day metti ba nga xam ne duñ ko mën a àttan ak seen kon donc daal ñi ngi leen di sant baax di leen gërëm di ñaan yàlla yoof yàlla def jàmm eh, lii lii suma grand wax léegi itam yoof gépp nañ ànd nekk benn man as 53 eh, yooyu ci laa bokk kontaan contacté na ma man bi ñuy nommé bureau yi waa dama leen marché mu yor doy na ma sëkk donc kon xam nga dëkk boo fa demee ba ñuy nomee fere yoof di la ca boole yow mënatoo génn fa nga dëkk donc ñu ngi sant waa yoof gépp di leen gërëm te ñaan yàlla dolli jàmm ci dëkk bi te feebar bi yàlla jële ko fi ci nu mu gën a gaawe ndax gàllankoor na lépp asalaam ngeen baal ñaax jërëjëf am na solo Amina mu bàyyi la nga tàggatoo ak euh, téléspectateurs yi waaw Thiat xanaa di santal yàlla bu baax a baax rek euh, ndaxte wax mu yegg moom yàlla sunu si su euh, ñu dalaloon ah suñu papa ji euh, chéri Thiat ne na nee na dañuy séddoo mais garaawul nangu nangul nañ leen ko ñoo ngi di jaajëfal bu baax a baax papa di wax euh, question yi su amee lu si dëng rek ñoo ngi ciy jégalu bu baax a baax nekkul woon suñu coobere mais tamit liggéey bi moo ko waral ah di jaajëfal téléspectateurs yi di jaajëfal aussi internet yi moo xam nga nekk Facebook wala. Ah, youtube ñu ngi leen di jaajëfal bu baax a baax ci dina di leen joxaat di dajeera ba mercredi incha allah jaajëfal aussi suñu caméraman bi Ndion Laay waa Régie tamit ñu ngi leen di jëfal bu baax a baax caat ba météo incha allah jaajëf incha allah loolu moo nekkoon seen émission chers téléspectateurs di kàddu askan wi tey ñu dalaloon ci Pape màgget sàmb di euh, ndey ji réew fii ci Yoff waaye tamit dal nañ fi ki nga xamante si ni mooy Gora Diop moom tamit nekk délégué marché Yoff foofu la ñuy jaare mbokk téléspectateurs yi di tàggatoo génn di remercier tamit sunu invité yi bu baax a baax man moom tey am naa fi jëkkër di <laughs> xam naa après siyaas daf may muur rek ma jaare noonu sëyi ay ci di leen jox dig daje nag na di prochain beneen numéro euh, kàddu askan bi ak yeneeni invité man moom maa ngi leen di jox euh, rendez-vous samedi incha allah à partir de 16h seen émission bu mag boobu di samedi net waaye tamit Amina dina leen jox rendez-vous dimanche ci seen plateau ngoyaan boobu di jaajëfal nag ñëpp ñuy doon seetaan depuis ñu commencé émission bi waaye ñu ngi nuyu di jaajëfal euh, les téléspectateurs de la diaspora di jaajëfal tamit téléspectateurs yu Yoff yi waaye fépp fu nit mën a nekk ci Sénégal di béggee Yoff TV rawatina Thiat ak Amina ñu ngi leen di jaajëfal euh, di leen remercier xanaa nag di leen wax ni rek bu leen bouger toog leen parce que dans quelques instants DJ Naata dina ñëw fii ak émission bu am jom boobu mooy euh, let's play ay ca jaajëf nii rek lay demee saa ne jërëjëf.